wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al wa ala wa saxbihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di ziyaare di leen dokkeel ci bis bu tedd bii di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu mboolem jaamu giñ kiy def ñoo ngi nuyu di siyaare as seex muhammadul muntaqa xafizahu llahu wa raahu wa abqaahu fiina tawilan maa sixa wal aafiya ñaan yàlla sunu boroom tabaraka wa taala mu may ko fan wu gudd ak wér bam yeggale mbooleem naalam yi te ñu ànd koog mbokki jullit yi mbokki taalibe yi sunu borom tabaraka wa la daf ñoo digal ñu ragal ko te ragal yàlla mooy jëfe ndigalam mooy tani ko ay tereem mu xamal ne loolu mu ñu digal nag te mooy ñu ragal ko daf ko yàgg santaane ci xeet yi ñu fi jiitu woon kon lu ko yitteel la ndax loo xamante nii sant na ko xeet yi fi jiitu woon xeetu yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam fedd liwaat ko itam bi yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñëwee lu ko yitteel la moom borom bi te mooy ragal yàlla wa laqad wassayna alladina utu lkitaaba min qablikum wa iyakum an ittaqullah te topp yàlla wala ragal yàlla mooy jëfe ndigal bàyyi tere noonu itam lañu digale itam ñu koy topp di ko jaamu tey sellal jaamu gi mooy di ko def ngir jëmmam te dëppale ko sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax duñ deñ di wax ne lii sart yi tax ñuy yaakaar ne borom bi dana nangu sunu jaamu jéggiwut yooyu mooy lim la digal nga fexe ba xam ko te jàng ko ca anam gañ la digale nga jànge ko muy jaamu yàlla gi na nga fexe ba xam nañ la ko digalee bañ koo tëñaxu te nga def ko ngir jëmmi yàlla tabaraka wa taala waaye nga dëppale ko sunna su yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax sëriñ bu mag bi radiallahu anhu yàgg nañoo dénk ne yàlla tabaraka wa taala kuñ war a jox ab cir la kenn waru koo fàtte ndax nee na képp koo xamante ni fent na leneen tudde ko yàlla te du yàlla bàyyi fee yàlla mu dëggu mi nee na bis dana ñëw mu xam ne benn buur amul bu ñuy jaamu te mu yeyoo jaamu ko ku dul yàlla mu dëgg moomee man abada ilahan gayra allahi fa sa yaalamu mu teg ca moom sëriñ bi ne waaye yàlla mu dëgg moomu itam nag su la yàlla defalee tawfiq ba nga gëm ne mooy yàlla bul beggantal yonente bi bu ko teg ci wet gi teg ko ci digg bi te di ko roy ndax moom itam ku ci am solo la munu cee ñàkk ndax nee na kuy jaamu yàlla mu dëgg moomu itam nag te ne faalewuma yonente bi duma topp sunnaam nee na bis dana ñëw nga xam ne muhammad mooy rasulullah wa man abada allaha bi geyri sunnati rasulillahi fa sa yaalamu anna muhammadan rasulullah kon nag sunu boroom itam daf ñoo noppal noppal na mbindeef fii ba mu leen waxee sabab si tax mu bind leen te mooy ñu jaamu ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun nee na binduma nit ak jinne lu dul ngir mu jaamu kon wax na lu tax mu ñu ba nga xamante ne wax nañu lu tax ñu binduñu wax nañu itam li tax mu wàcce ñu ci kaw suuf te mooy jaamu googu bi nit ñi melee ne dañoo gëlëm nag jaaxle xamuñ nuñ koy jaamoo mu wëlbati moom borom bi ne leen muhammad rasulullah muhammad mooy yónnente yàlla bu dem leen ci moom danaa ko digal mu leeral leen nu ngeen may jaamoo walbatiku na yónnente bi itam ñooñu ma la booleel xamal leen nuñ may jaamoo wa anzalna ilayka dikra li tubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim yónnente bi jëfe ndigalal borom boobu leeral ni ñuy jaamoo yàlla ci sunnas waxam ak sunnas jëfam ak sunnasam saxal ñu def ko ci kanam mu wéyal ko waaye nag yoon wi ñuy mën a xamee sunna soosu ak ñuy jaamoo yàlla bi ñu ko yónnante bi leeralee ba noppi ba jóge fi nag ñoo ngi koy mën a xamee ci wenn yoon te mooy ñu jàng xam-xamu diine xam-xamu diine ci la ñuy mën a xamee tawxiid ci la ñuy mën a xamee itam nu ñuy jaam yàlla jaamoo yàlla tabaraka wa taala xam-xamu diine mbokki julli yi dafa munta ñàkk moo tax a seex muhammadul muntaxa duñ ci soññ waxtu wu nekk di jàng di jàngulu di tabax ay daara di dimbule daara ngir xam-xam buy jàngale xam-xamu diine buy jàngale nu ñuy jaamoo yàlla des fi ngir yitte jum ko jox ak xam gim xam solo sim am waaye loolu itam ma ngi ko jëlee ca maamam muy abdullahi wa xadimu rasulillah moom meene woon bu leen sobental xam-xamu diine bi leen di xamal nu ngeen di jaamoo yàlla di leen xamal seen faratey jëmm daal ne ngalawaay sëriñ bi mooy wax mu ne ngalawaay bu leen ko beggantal na ngeen ko fonk te jàngi ko ba mën a xam seen farate jëmm doonte ne sax dangeen koy jàng ci làkk wi ngeen nàmp moo xam muy wolof wala séeréer wala bambara waaye làkk woo xamante ni mën nga caa xamee sa faratay jëmm sëriñ bi nee na na ko ce jànge moo gën mu teg cëb tëkkoon ak moom sëriñ bi ne waman lam ku nangu wut a jëfe ndigal lii ma ko wax xanaa sàggan wan xam-xamu diine ginnaaw ba xamut faratay jëmmam nee na waman lam ku deful loolu ëllëg bis penc falaa yeloo mën na illaa nafsa bu mu yedd ku dul boppam te loolu nag ki ko wax kan la mooy sëriñ bu mag bi ñu mu ko jëmale mooy mbokki taalibe yi soññ leen digal leen ci ñu jàngi ba xam seen euh, faratey jëmm nee na doonte ñu ci làkk wi nga koy nàmp wi nga nàmp nga koy jànge demal nga jàng ko ci boo ko defut ëllëg boo yedd ak réccu bul yedd kudul sa bopp te réccu googu itam yàlla nañ ci yàlla musal te dara weesoogul nag ci xam lu yu mel noonu kon xam-xamu diine boobu nag moo ñuy jàngal nu ñuy wéetale yàlla tabaraka wa taala muy mbir moo xamee ni tam yitteel a seex Muhammadul Muntaqa la bari waa na lu muy rot ci ay waxtaanam ci soññi gum ñuy sàññi ci ñu xam yàlla tabaraka wa taala jàngi xam-xamu tawxid ba mën a jox yàlla cër bam yeyoo ndax xam gim xam ne ku ma woote jëm ci yàlla ku ma baax soobu jëm ci yàlla da ngaa jiital xam-xam boobu te mooy wéetal yàlla tabaraka wa taala ndaxte mooy tàmbul bi mooy digg bi mooy yemukaay ba jëf ju baax ju nekk itam bu fekkee la ko fondement mooy mooy xam-xamu diine jëf joojee day baax di gën a jëm kaw rek waaye du wàññeeku mukk kon loolu la sëriñ bi xam tax waxtu wu nekk mu ñuy soññi ci ñu gën a yeesalaat pas-pas yi gën a jàngiwaat xam-xamu tawxiid ba mën a jox yàlla cër bam yaroo loola itam la sëriñ bi xamoon ba jiital xam-xamu tawxiid bi lay xamal ku yàlla moom la jiitaloon ci mbooloom xam-xam yi wa afyadul ulumi lil qulubi ilmul ubudiyati wa rububi naka noonu itam cheikh muhammadul muntaqa xafizahullahu wa raa waxtu wu nekk mi ngi naan nañ jaajuwaat nañ jaajuwaat gën a yeesalaat pas-pas yi gën a yeesalaat eh, li ñuy gëmee yàlla tabaraka wa taala di ko gën a settantal di ko gën a wéral ba mu dëppoog na yàlla bëgg ñu gëme ko na ñu koy gëme noonu te loola itam dafay feddliwaat di yeesalaat ndigalal sëriñ bu mag bi ndax waxoon na ne wal himma tarfa kullaha lil xaqi wa kil bi izzin la tamit lil xalqi nee na seen yitte yëpp ak seen pas-pas yëpp na ngeen ko yëkkati jëme ci yàlla tabaraka wa taala te pas-pas boobu nag boo ko bëggee yëkkati jëme ko ci yàlla tabaraka wa taala mënoo caa njàkk jiital nag nooy gëme yàlla muy tawxiid ba wéetal ko ba jox yàlla lam yayoo waaye sëriñ Tuubaa radiallahu anhu andi ñaari bayit yoo xamante ni taalibe ak jullit bu ko settantal te gëme ko noone jëfe ko da nga mën wéetal yàlla da nga ko mën a jox itam cër bam yayoo lam ca jiital moom sëriñ bi dafa wax ne sunu borom day la ngay njëkk gëm ci moom te war koo gëm ci moom mooy da ngay gëm ne ku am la mooy yàlla ku am la boo gëmee ne yàlla ku am la itam na nga ca toftal ne kenn amalu ko allahu mawjudun bi xayri mujidi yàlla ku am la te amam googu itam amut ku ko jiitu ba bind ko moom yàlla waaye huwa al awwalu wal axiru wal zaahiru wal baatin yàlla ku am la te amul ku ko amal allahu mawjudun bi xayri mujidi nga teg ca ne fa innahu muujidu kulli muujadi yàlla moomu ba mu amee ba noppi itam ku am moola amal mooy kuñ bind ginnaawam moo la bind te moom kenn bind ko loola kon ku ko xam muy allahu mawjudun bi xayri muujidi fa innahu muujidu kulli muujadi nee na nang ca toftal nag ne yàlla moomee dafa mat sëkk amut fenn fu muy wàññeeku amut benn sikk te matam googee ci la matale képp koo xam ne matul tey mbindeef allahu kaamilun mukammilun siwa waaye nga teg ca itam ca njàngalem sëriñ bi ca taw tawxiidam juréy ja mu ne nga xam ne itam àdduna ak li ci biiram lépp ci ndigalal yàlla lay dox te moo ko moom wal kawnu kulluhu lahu wa ma hawa kon ñaari waye nga noon yoo xamante ni taalibe bu ko settantal jullit bu ko settantal war na laa doy sëkk ci nga am tawxiid ju wér muy allahu mawjudun bi gayri mujidi fa innahu mujidu kulli mujadi allahu kaamilun mukammilun siwa wal kawnu kulluhu wa ma hawa mu tegaat ca leneen tam ca njàngaleem mu rëy ma moom sëriñ bi ci tawxiid ak bëgg ñu teg yàlla barab bam war a yayoo mu wax ne bokk na ci li nga war a gëm tam bokk ci ponki gëm yàlla mooy nga gëm ab dogal waaye gëm ab dogal am na solo lool ndax ca ngay xamee ne lépp lu am yàlla bëgg mu am te ci kàttanam la amee su ko bëggutoon du am te itam di su mi def mënu fexe ba ba def ko loolu mooy gëm ab dogal moo xam muy dogal bu neex wala bu naqari waaye nag boo ko gëmee ne lu xew yàlla itam la ca toppaat te am solo lool te ñu bari di ko sàggane mooy nga gëm nag ne eh, nga gërëm loo dogal boobee nangu ko loolu la sëriñ bi doon wax ci masaalikul jinaan ne fa xaysu ma yajri qadaau rabbi fa min duna tirabil qalbi fépp foo xamante ni dogal borom bi tabaraka wa taala jéng na nanga fa nee na na bañ cee am naqaru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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد sunu أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة arrahmaani irrahim ñoo ngi toll woon ci sëriñ bi radiallahu anhu fi mu bëgg ñu teg fa yàlla tabaraka wa taala ci wéetal ko te nangu ab dogalam gërëm loo ko ndax nee na lu yàlla dogal na la neex nanga ko gërëm loo fépp fu dogalab yàlla bi jëm nanga fa jéng jëm fa tabañ caa am aw naqar fa xaysuma yajri qadaau rabbi fa min lahu duna tiraabil qalbi mu teg ca ba tey ci njàngaleem mu rëy ma ci nu ñuy wéetale yàlla mu teg ca moom sëriñ bine nanga na xam ne lu nekk mën ngaa teqalikoog moom wala ku nekk mën ngaa teqalikoog moom am ku ko wuutu ku ko remplacer bam des yàlla borom bi rek mooy ki nga xamante ni mbindeef fi munta doylu mën naa doylu ci ku nekk ba des ci borom bi ko bind lépp lu mu teqalikool wala képp ku mu teqalikool itam mën naa am ku ko wotti ku ñëw taxaw di ko taxaw nam ko doon taxawee ba mu des yàlla tabaraka wa taala is kullu ma faraqtahu talqa badal miin minhu siwa xaaliqika almuudil amal loola kon mi ngi ñuy xamal fu ñu war a teg yàlla di ñu xamal ne mënuñu koo ñàkk loo mënta ñàkk nag da nga koy jàpp-jàpp gu wér gëm ko gëm gu wér mu xamal ñu itam ne ki la mën a jox njariñ mooy yàlla ki la ko mën a xañ itam mooy yàlla ki la mën a teg loraange mooy yàlla ki la ko mën a teggil itam mooy yàlla waaye nee na du mbindéef loolu nag ku ko xam te gëm ko lu mën a dikk rek da ko mën a gàddu yanam inna alladi yuliika manan aw darar huwa ilahuka taala la basar nee na kila la mën a jox njariñ man la koo xañ teg la loraange wala mu teggil la ko kenn dong la te mooy yàlla neena na du caagee ne mbindéef ndax mu ne mbindeef yi mënuñoo jariñ seen bopp te ku munta jariñ boppam munta jariñ moroomam kon na sukkandiku ci ki bind mbindeef yi te mooy yàlla wal xalqu laa yanfau nafsahu layaad fa kayfa gayrahu idan min al ibaad nee na mbindeef yi jëriñuy sukkandiku ci ñoom ndax mënuñoo jariñ seen bopp bu ca yàlla àndut te ku munta jariñ sa bopp nag mënoo jariñ sa moroom kon na ngay sukkandiku ca ka nga xam ne amul moroom laa sharika lahu wala nadira lahu wala didd wala nit te kooko mooy yàlla tabaraka wa taala loolu lépp nag sëriñ bi mi ñu koy xamal ngir ñu bëgg a teg bëgg ñu teg yàlla jox ko cër bam yeyoo mu wax nag ñaari way yoo xamante ni yu mat di settantal la ci téereem bi mu tudde tasawud sixaar mu wax ne bokk na ci li mu kàllaf war a gëm mooy mu xam ne jeexit jum gis ci kaw suuf wala jëf ca yàlla la jóge waaye jógewut ci mbindeef yi jeexit wala jëf jum mën a gis ci kaw àdduna ca yàlla la jóge yàlla ko bëgg tax mu am su ko bëggutoon du am waaye nee na jógewut ci mbindeef fi wa wajaba al imaanu anna al athara li rabbina wala yakunu lil wara nga ne ko ah mu ndaxte nee na liy mbindeef yëpp yëpp amut ku ci mën a jeexital wala nga ce jëf lenn te yàlla àndu ca ba loola mën a sotti bu ca yàlla àndut du sotti mu ne jeexit ak jëf joo man di wax nag laa wax mu ne lii ma la wax nag mooy li wér laysa yakunu fi jamii alaalamin muathirun fi atharin ma dal yaqin nee na jeexit ak jëf joo man di gis bu fekkee yàlla àndu ca jeexi jooje munta am mu ne daa lii ma la wax nag man sëriñ Tuubaa al yaqin mooy li wér bu ci werante kon nag fal muminul xaq jullit boo xamante ni bu dëggu la al muslimul ku gëm yàlla ku dëggu te jébbal sa mbir yàlla te jébbal ga dëggu wal muxsinul xaq tey rafetal sa digganteeg sa borom di rafetal sa digganteeg sa morom te rafetal ga dëggu kooka laa yaxaafu illa allah du ragal kenn kenn kudul yàlla wala yarju illa allah du yaakaar kenn kudul yàlla wala yastaki illa ila allahi du jàmbat ay jafe-jafem kudul yàlla foofee day fële sëriñ bi nekkoon te bëgg ñu yegg fa nag moo taxoon mu waxoon ci masaalikul jinaan ne laa tastaki lxaajaati lil xalaa'iqi bal mil biha ila alqadiri alxaaliqi nee na say jafe-jafe ak say aajo bu ko jàmbat mbindeef fii jàmbat ko ca ka bind mbindeef yi ndax mooy ka am kàttan te mooy yàlla tabaraka wa taala ca loolu la nekkoon moom sëriñ bi di ñu ko jàngal bëgg bëgg ñoo teete itam ñu yegg ca ba ñu woon loraange foo ko fekk ci yàlla la la jógee bu ko neexutoon du am te su ko neexee itam mu jële ko fa njariñ yitam ci yàlla lañ koy séentoo kum bëgg a jariñ jariñ la kum bëgg a xañ xañ la waaye jógewut ci nit ku weex wala nit ku ñuul ad durru wa nafu min arrahmani laysa min albidaani wa suudaani ca la nekk ba yegg di wax ne moom amul loraange ju muy ragal juy tukkee ci mbindeef di dal ci kawam ndax loraange ju tukkee ci mbindeef dal ci kawam rek daa neex borom bi tax mu jóge ca mbindeef moomee sabab la ca rek waaye ka ko bëgg te dogal ko kenn la te mooy yàlla tabaraka wa taala moo tax mu ne woon ragaluma loraange ju jóge ci mbindeef di dal sama kaw ginnaaw bi ma fabee sama mbir yépp joyal ko mu jëm ci ki bind mbindeef te kooku mooy boroom asamaan lastu axaafu durra xalqin baadama fa wattu amriya ila rabbi sama ca loola nekk ba di xam le ne njariñ li nga xamante ni wéetal yàlla am na ko def yàlla muy kenn am na ko jox yàlla cëram ba mu am na ko njariñ lam am ak ragal yàlla cër ba mu am mu yegg ci ne boo demee ba teg yàlla fa mu war a tegee ci ragal goo ko ragal képp ku dul yàlla daf lay ragal képp kuy def daf lay ragal fa xaysuma taxaf ilaahaka al ahad yaxafka min xawfikahu kullu ahad soo ragalee yàlla mii kenn te ragal ga dëggu képp ku yàlla daf lay ragal jox lab loola itam ca la ñun ba ci masaalikul naan mu wax ñu ne sunu borom day am na yoo xamante ni mbindee fi jërul ñu cee sonn ndax def leen koo garantil luñ la garantil war lul la ko nag nee na jërul nga cee sonn loo war a def kon lañ gàll ci saw loos tey sàkku sàkku ko ci yow ca la nga war moom nga war a xëntewoo di ca sonn te mooy jaamu yàlla ak xam noo koy jaamoo tam te sellal ko dëppale ko sunna su yonent te def ko ngir jëmmam nee na loolu nga war a yittewoo waaye dikk sab dikk muy waxtu wi nga xamante ni bu jotee sunu borom jàpp sag ruux nga faatu nee na loolu sax daanaka jërut nga cay concentré wu ak di ca xalaat lu bari ndax nit ku nekk am na weer wu muy dem nit ku nekk am na bis boo xam ne bu jotee ca lay dem nit ku nekk am na uh, minute boo xam ne su jotee ca lay dem nit ku nekk am na seconde boo xam ne bu jotee du ko jéggi ndax loolu sunu borom moo ko dogal te nee na noppi na ca ku gëmee yàlla noonu nag doo ragal ak dee sax rawat na waaye nag da ngay yegg foofa naka noonu wërsëg yàkkamti wërsëg jëru ko ndax faww danga nga jot loolu la doon wax ne wa faragal mawla min arbain ajal wa xuluqin rizqin wa xalqin qul ajal mu teg ca ne képp ku sàkk loo xam ne yàlla dogalu ko da ngay sonn kër-këri ba sonn te doo ca jot te la yàlla bëggoon rek mooy am fa kullu man talaba ma lam yuxlaqi taibatu la dahrihi lam yurzaqi loolu la sëriñ bi ci la nekk leeral ñu ci yu baree baree bare xamal nañu mbindee fi buñ manqué woon ngir jëriñ la te yàlla àndu ca doo jot ca njariñ loole suñ manqué woon ñoom ñëpp itam ngir lor la te yàlla bëggut lor ji dal sa kaw lor joogee du dal sa kaw kon loolu nañ koy bàyyi xel loolu nag ci la sëriñ bu mag bi nekkoon a Seex Muhammadu Muntaxa itam ci la ñuy son ñu waxtu wu nekk ci ñuy wéetal yàlla di ko jox cëram tey bañ a yul suñ yoonu nekkut moo xam muy ay wax wala muy ay jëf ngir jëfe xadis yonente ba mu waxoon ne min xusli xusni islaamil mar i tarkuhu ma la ak teye sunu làmmiñ ci jullit ñi teye sunu loxo ci jullit ñi al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi yàlla nañu yàlla boole jéggal te boole ci nga xamante ni eh, dañuy jëfe ndigal tey bàyyi tere yàlla na fi yàlla bàyyi sëriñ bi ba mu yeggale ay naalam ci ko bëggee dañ ànd ko moom wa axiru daawaana an ilhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu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 أعني ربي الحمد لله الذي تفرد في ملكه وبقى وتقدس وتنزأ في أزليته فلا عين ترى حكم بحكمه في خلقه فلا محقب لحكمه ولا راد لما قضى قزم الأرزاق والآجال بين عبادي هذا منع وهذا أعطى وهذا أسعده وهذا أشقى أحمده على ما أعطى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهدها يبلغ منا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء وصلى الله وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم عرضه ولقاء أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى وأحذركم عن المعاصي فقد خاب من عصى مولاه ولازموا طاعته ففي طاعته رضا wa anhaakum an ittibaahi alhawa faqad dalla man ittaba hawa wa aamurukum bi taajili tawbati qabla an yabluga alajalu muntaha wa alamuu yaa cibaad allah anna man dakara allaha dakara wa maa tuqaddimuu li anfusikum min xayrin tajiduuhu cinda allah wa anziruu zamaanakum haada fa innahu zamaanun qalla xayruhu wa kasura balaa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 wa fi lxadiisi arbaxun min alchaqaawati jumuudu alayni wa qaswatu alqalb walxars wa tuulu alamal wa fiihi aydan inna allaha yabsutu yadahu billeyli liyatuuba musiiu nahaar wa yabsutu yadahu binnahaar liyatuuba musiiu leyl xataa tatlua alchamsu min maghribiha yaghfiru allahu lii wa lakum wa li jamii almuslimin الحمد لله الذي احتجب في حجاب جلاله فلا تراه العيون وتفرد في صفات كماله فلا تقال تغزنون أحمده سبحانه وتعالى بمحامده الذي يذكر بها الحامدون وأشكره بشكره الذي تقر به العيون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما كان بما كان قبل أن قبل أن يكون واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله يا له من نبي تشرفت به الانبياء والمرسلون اللهم صل وسلم وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم يبحثون اما بعد فيا ايها الناس ما هذه القفله التي انتم عليها عاكفون تسمعون المواحظ كل جمعة وأنتم عنها معرضون أتظنون أنكم في الدنيا مخلدون أم تتوهمون أنكم لا تموتون ولا تبحثون أين الأنبياء أين الأولياء أين المرسلون أين الأم الماضية أين آباؤكم الأقدمون قد صاروا والله في التراب هم الآن الذائبون المتقطعون كل نفس ضائقة الموت ونبلكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وفي الحديث أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم وفيه خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil aalamiin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 والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي وليسرك لليسر وذكر إن نفعت الذكر سيغفر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قال من تزكي ولتأمر به فصلى وتؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله أكبر سمع الله لمن حبنا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 بجنة عالية رأسها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مكتوبة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت والأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر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 السلام